tali yi moom sonal nañu trop parce que première des choses lii gën a causé li nga xam moom mooy gën a waral choc yi am ak tout ça mën nañu wax certes que ñu ci bëri dañuy wax ni choc yeeg vitesse yi moom moo koy waral waaye war nañu mën a xool melokaanu tali yi ni mu mel loolu war na mën a nekk li nga xam moo gën a jur loolu. problème bu daw ci tali bi sax dañ koy am man sama moto bu nga nee moo ko jëndee moo dogol un mois tas na wesar ndax tali yu bon ah, mën a dimbali ñu jël camion yi surtout gis nga leen mënuñu aw ci tali ndax kii bi dëkk bi la ñuy jaar fu nañu tegg fa te lii parce que route nationale la rek route nationale la tali yi nii pour askan bi la mais defaruñ ko pour askan bi ñu ngi defar seen i kër defar seen yeneen yeneen bàyyi tali yi nii doomu aadama yi nga xam ne ñu bëree bëri ci la ñu jaar ci suñu réew ñii di ci liggéey tamit mu mënuñ cee liggéey ndax tali yu bon tali yi daal li ma la ci mën a wax daal mooy baaxul baaxul tey jii bu ñuy liggéey oto bu bee ñun dañuy am problème en même temps ñi fi am kër ñëpp dañu am problème waaw tali bi dafa doon loo xamante ni lu am solo la ci dëkk bi parce que national route nationale bi bu amee problème rek wala tey ji benn programme am pa boo xamante ni dañuy dévier oto yi oto yi ci ëpp fii la ñuy jaar en même temps yi dem usine ba yëpp yi ci ëpp fi la ñuy jaar même yi dem Mboro ñi ci ëpp fi ñuy jaar te tali bi buñ ko defaroon station euh, euh, embouteillage bi muy am bu boobaa mun na ñàkk. Tivaouane contournement bi mooy tali bi boo gisee nii xam ni fii dara baaxu ci ça fait des années et des années ñu mais dinañ ko defar mais ba léegi nii kenn laalagu ko. ñun de fi ne nii sonn nañ ci tali bi lool suñ moto yi boo ci jënd du am sax un mois ndax tali yi kàmb gudul dàkk bu tawee nag dañuy gën a. yàgg na fi trop te bu ngeen demaatee fi ba doon bu ngeen mëntul fekkaat ko fi nii autorité yi ñëw nekk fii lañ koy nekk te gros porteurs yi ñoo fi jaar gars yi veewu ñu ci loolu donc li xam moom mooy mbir mu njëkk pour mën a assurer transport pour mën a euh, def prévention wu. li nga xam moom mooy euh, moom mooy choc yi am ak yëpp yaakaar naa ni tali bi nga xam dafa mucc ayib bokk na ci moom mooy yi ko jiitu. tiit ak njàqare la wàcci waawoon di dund dëkk bi di dëkku maam Alaaji Malick sooxe na loolu ci wàllum tali ju baax yàqu-yàqu yi dinay faral di jur ab lorange ca borom moto yeeg oto yi rawatina gros porteurs yi te saa su tawee kenn mënul fexe ba jël tali yi ndax embouteillage ak mbënn mi. Tivaouane jamono yi boo jëmee événement da ngay xool ni tey gros porteurs ñoom ñëpp ci biir dëkk bi dañuy jaaree bu ñu demee dem dem ba benn instant dëkk bi day xat fii ak 3 jours gis nga yow yóbbu naa la ci biir dëkk bi gis nga li mel dëkk bi instant yi dafa xat dafa encombré kenn mënta dem kenn mënta dikk te tali bii rek mooy sunu tali bi nga xam ne moom lañ fi am mën nga ñëw boo jëmee Mbooxo mën nga jugee Thiès ñëw ba ci garage bi nga def contournement bi jël ko te du am benn muskil la boo mais tali bi dara baaxu ci. tali bi lépp a yàq ça fait des années pendant quatre ans wa ngi nii ba cinq ans tali bi kenn mësu koo laal lépp ay kàmb la bu tawee moom bu ko xalaat sax doo fi jaar moo tax gars yi dañuy obligé mujj jaar ci biir dëkk bi te loolu arrangé wu ñun population Tivaouane bi moo tey ji danoo sonn trop ñuy ñaan pour gars yi jëm nu cee dimbali defar tali bi lu mu gën a gaawee balaa gàmmu jot parce que bientôt dañuy gàmmu Tivaouane te tey jii nii ñëpp mënunoo xa jaar biir Tivaouane ndax dëkk bi instant yi xat na dañuy ñaan nag pour nguur gi ñu dimbali ñu defar na ko parce que digg yi tamit bari na te boobu ba kenn defe ko en même temps assainissement Tivaouane danoo sonn bu tawee doo am foo jaar muy jumaa ji ak ginnaaw jumaa ji ak li wër biir quartier yi mënoo am fenn fenn foo jaar ndax ndox parce que danoo defar tali te amul assainissement loolu tamit lu ñu gën a sonal ci la bokk ñu ngi ñaan yàlla gars yi tamit ñu jàpp ci ñu defaral ñu ko defaral tali bi ndax sonn nañ loolu rek la ñuy naan ak éclairage yi gis nga instant yi nii dara baaxu ci lépp sëgg te gars yi nii kenn waxu ci lu gàmm ba gàmmu la gars yi profité pour defar ko ñi ngi ñaan nag gars yi mën nu koo defar pour nu defar nu ko gars yi mën nañu cee taxaw état bi taxaw ci defar ko. ci dëkk bi nañu ko defar waaw maa ngi nii tout près ci sama ci sama buntu atelier ci laa nekk nii di wax nii waaw fii man maa ngi fi njëkk daanaka dëkk mais gis naa ni tali bi li tax. nit ñi tamit fii dundul ba léegi mooy ñàkk aw yoon te fu amul yoon tamit nit ñi duñu sawar waaw duñu sawar mais bi ma ñëwee ba implanté wu fii commencé di liggéey nit ñaa ngi commencé di ñëw ndànk-ndànk te dama risqué rek ñëw fii waaw mais tali bi su fekkee ni baaxul tamit nit ñi euh, li ci ëpp duñ fiy faral di jaar te buñ fi jaarul tamit day tax zone boobu ni mu war a dundee duñu dundee kon tamit nañ ci jàpp état bi xam ni tamit lii wax dëgg yàlla war nañ ko defar nañ ko defar nañ ko defar parce que ñun ci dëkk bi la ñu bokk dañuy participer comme ñëpp kon jaadu na tamit fi nga xamante ni ñun foofu la ñu nekk zone boobu ñu defaral ñu ko comme ni ñuy defaree fépp ci biir dëkk bi amul fu ko gën a yey ci ci biir Tivaouane waaw parce que route nationale heure ñu ko baaree oto fii lañ leen di dévier te bu baaxul mën na fi indi jéeya jéeya joo xamante ne ni dañ naa ah lii tali bu baaxul moom moo ko andi man mi fi nekk gàmm xam naa man embouteillage bi ni fiy def kon dafa jaadu pour ñu defar ko. te Tivaouane am na tali yu baax am na tali yu bon waaye bii moom def ci yées ca du bii dong am na yeneen yoo xamante ni bi ñu ci biir dëkk bi ca lu ñu sañoon nag ñu defal ko ndax jafe-jafe yi muy indi bari na parfois da ngay daw nit di traversé nga dugg ci kàmb gi mu fël la nga nga laal benn doomu aadama te loolu yëpp kàmb tali yu bon moom moo ko waral. jafe yi muy indi fi ma bari na surtout nag bu nawet jotee da ngay daw bu dugg ci kàmb ca doo xam ne dugg nga ci kàmb ca du bii dong yu bari la fi. lu mu fiy yàq ci ay matériel ay dégâts de matériel bari na ay moto jakartaay yu bari mu ngi yàqu oto yi yu ci bari mu ngi yàqu borom sareet yi parfois da ngay daw ba yàgg sa sa pneu sareet dugg ci kàmb loolu yëpp tali bu ñàkk baax moo ko waral. tali bi ñu defar ko ba mu baax moo ñu gënal ndax tamit ab dëkk boo fa nekkee wax dëgg yàlla war nga mën a jànkoonteet jafe-jafe askan wa ñu wax seeni bëgg-bëgg ñu dimbali leen jàppale defar leen. fii kenn xamut kenn du xam lu muy nirool da ngay jéggi bu fekkente ni oto yi. dafay nekk loo xam ni kenn du fi mën a jaar normalement jakarta yi aussi doo mën a jaar normalement parce que tali bi déjà baaxul dafa bëri ay pax te pax yooyu bu newee ndox ki ci mën nga dem ba tàbbi ci yeen yoo xam ne day nekk yenn saa bu tawee hauteur bi ndox mi day kawe donc même yenn oto yi pour ñu jaar fi bu ñu jaaree sax day sol ndox yenn oto yu suuf yi dañuy am problème pour mën a jaal donc dafa am zone zone yoo xam ne oto yi duñ yenn oto yi duñ fa mën dem wala boog même yi fay dem dañuy yokk transport bi si boppam. donte du liggéeyu mer yi askan wii di sàkku ngir ñu dimbali municipalité yi ndax dem ak dikk mën a yomb ci biir dëkk bi rawatina weeru gàmmu bi ñu dëgmal. tali bi baaxul ndax ku fi yor sa oto boo fi jaaree mu yàqu waaw yor sa oto boo fi jaaree mu yàqu même sa moto boo fiy jaar ñaari yoon ñetti yoon mu commencé ngay gis ni moo ngi yàqu te loolu yëpp nag wax dëgg yàlla buñ defaroon tali bi mun na ñàkk waaw tali la boo xam ne bu baax la ci dëkk bi. tey du bii nag mais bii bokk na ci yi nga xamante ni dafa gën a fës tey ni ñu ko waxee dafa doon loo xamante ni yóbbu nañ ko ba ca pencum ndaw réew yi mooy fi ñuy jooyee lépp loo xamante ni nii metti na euh, ku nekk fa nga nekk kon li war mooy ñu taxaw ci li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu jeunesse su Tivaouane bi leen seen tali yi ba mu baax waaw mais fii da ngay gis ñi fi dëkk dañoo am problème waaw kon loolu tamit jaanu na état bi jël tamit ay matuwaay yu mat taxaw defar suñu tali yi waaw dañ woon gàmmu paase dañ koy defar bañ nee gàmmu ba gàmmu gi ñëwee des deux trois jours ñu ñëw xëpp xeeru xong xam nga maasale ko ñi fi daloon dal gàmmu yi fii yëpp ay dal lay doon bu gàmmu gi ñëwee fii yëpp dañ koy baas ba ci nii ci ginnaaw kër yi yëpp day fees dell ci seen kaw terrasse yi yëpp ay dal lay doon mais ñoom ñëpp dañu am problème ndax xeer yi nga xam ne sotti woon nañ ko kon fii nekkatul ci biti Tivaouane mais ci biir dëkk bi la te dafa doon voie bu am solo kon nañ ci jàpp état bi dimbali ñu defaral ñu ko ñee ñu ko war a jooyal tamit jooyal nañu ko fañ ñu ko war a jooyale yaakaar naa kon moom mi nga xamante ni nii moom moo war a mën a taxaw pour taxaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Tivaouane ne leen taxaw maire bi wax dëgg yàlla mu ngi def kéemtulaay kàttanam xëy na nag dëkk boo fa nekkee def lépp moom kenn mënu ko mais nag muy góorgóorlu waaye bu yokkee dina baax. maire bi xam na ko parce que Diop si ngi def waaram moom gis na li fi nekk taxaw na devant tout le monde wax ko ne Tivaouane manqué na temps temps et temps wax na ko wax na ko maintes fois am na ay député yoo xam ne booba léegi ni nga ko wax comme ku mel ne Massata Samb ay yoonu yoonu yoonu yoon mi ngi koy wax mi ngi koy wax assemblée nationale di wax Tivaouane soxla na ku ko defar Tivaouane mi ngi jooy tali bu baax Tivaouane mi ngi jooy éclairage Tivaouane mi ngi jooy ay assainissement boobu léegi mi ngi koy wax. mais boobu ba léegi tamit dégguñu boobu ba léegi état bi nga taxaw fi mu taxawoon dégguñu dara lu wax ci gis nga gros porteurs yi gis nga li mu demee dañuy mujjee obligé wàcc tali bi ñëw borom kër yi da ngay defar sa ba mu baax mujj gi dégg mu cher ndax carrière gu xonk gi lañ ci sotti poudre bi la bàyyi ko ni te loolu baaxul ci nit ñi koy nooy baa ngi nii ba léegi mooy loolu gis nga borom jakarta baa ngi nii gis nga day mujjee wàcc tali bi. ñëw jaar ci rang rang bi parce que tali bi lépp ay kër kër la ay kàmb la waaw loolu rek lañ soxla ku nu defaral ñun amul lu Tiwaawan ku ko defaral nag ñu jël. Tiwaawan doon dëkkum diine ak bu nekk ay millions yi taalibe daañ fi dajee ngir màggalu juddum yonent bi te yoon ju baax bokk na ci liy wàññi embouteillage bi. muy Tiwaawan muy feneen parce que pour mën a defar dëkk da ngay commencé ci gox génn ci région ba mën a ba mu a wër au niveau national Tiwaawan lañ nekk c'est une ville lumière mais fii nag déjà c'est une ville bi nga xam ni dëkk bi nga xam dafay accueillir nit ñu bëri bu gàmmu amee bu ziar amee kon donc kooku noonu ay yoon yi war na mën a nekk ay yoon yoo xam ni mucc ay puis bu événement jotee ñu mëkk ni ko dafa jëfandikoo mais pas ba événement jotee ñu profité dóor ay courses yoo xam ne bu jaalee ñu bàyyi woon ak lii nii yaakaar naa loolu moom du defar tuddul defar bu ngay defar dañuy nekk loo xam ne dañuy defar ba ñu xam ni ku fi jaar kat xam ne lii soppite am na. jaadu na tamit ñu ko. ndax tali bi ma zone bi mën a dund carrément waaw ndax zone bi tànk que yoon bi baaxul moom du dund waaw fi bëgg a jaar bari nañ trop mais ku fi jaar sa dafa dafay yàqu balaa ci yàgg ñoom ñëpp ñu ànd jaarandoo ci route nationale bi te loolu tamit embouteillage bu métti lay créer foofu moo tax toujours carrefour ba noonu lay amee embouteillage mais buñ ko defaree tamit ah embouteillage boobu dina wàññiku waaw dina tax dëkk bi ku bëgg dem Mboro bu boobaa fii ngay jaar doo soxla ngay jaari ca carrefour ci cité da baax rek boo jë boo boo parce que cité da baax la ak HLM ñoom ñoo seq tali bi parce que lii nii ci HLM la bokk waaye li jëm nii yëpp moom it cité baax la sama côté boos waaw mais nañ ci jàpp daal defar ko. waa Tivaouane daal ñu ngi jooy ngir ñu defaral leen seen tali mu baax seen lamp yi ñu yokkal leen ko mu baax surtout nag ci wàllu sécurité moom bay wax sécurité moom zéro. tali yi am na jafe-jafe wàllum éclairage bi am na jafe-jafe wàllum sécurité am na jafe-jafe li ñuy ñaan nguur bi daal mooy ñu dimbali ñu defaral ñu suñu tali ndax moom lañ am ndax fu leen dëkk lamp yi buñ ñu ko mënee yokkal ñu yokkal ñu ko sécurité bi ñu tamit ñu def ci seen suñu kéemtalaay kàttan